ne yàlla ko yàlla yëkkati àjjana yu kaw yi. ne dañoo yàgg lool di liggéey. ne maxtaar nekk nit ku yàlla baax. ne ñu ànd tukki. xamoon na ni. doom ju ne Adama tubaarkàlla dina ko am. Adama ne dana am jom lool. ne am na ay témoignages yoo xam ni. nee mënu ko wax fii nee wan ko ne Adama nee daal daal ci xale am jom yi daal ci la bokk nee jëf yu sax dama ko gis. nee xale daal bu amee jom nee di dox nee ba daje nee ko am judd waxu gëm sa xam sa nee Zeyna daal mbokk yi na xam ne ci jigéen ñi xam boppam Zeyna daf cee nee Zeyna ku xam boppam la. ok nee kon nag ñun ñëpp dañu war a yàlla. nee sant yàlla bu wér noonu woon. nee daal xale bii di Zeyna ndaw la. nee bu ko wooyee ba waxtaan ak moom. nee mu xam ne daal ki mu waxal. nee xam na daal xam na bopp nee kon sëy bii nee rafet nañ ci njort nee sëy bii rafet nañ ci njort nee ki xam li nga bëgg ak ki xam boppam nee ñaari communiqué yooyu bu ñu dajee Ah. ne bañ ak lam dañ nag sorewul noo dëkk léeg-léeg nu daje